buñ sukkandikoo ci buur su moom li mu wax mooy procureur moom ñaari at la sàkku ñu daan ko Ousmane Sonko ki ñaari at yooyu benn at bi lay tëdd ci ah, kaso ko mandat d'arrêt ci kaso bi kon loolu itam mooy li nga xam ne moom la buur su ah, wax ah, ñeneen ñi dañoo xam moom deux cent ci biir deux cent yooyu un an bi nekk prison de ferme ak itam mandat d'arrêt ci information yi ñu sukkandiku léegi ci ki xam ne moo di buur niw jàpp yéen Ousmane Sonko itam fële ca conseil municipal bu Ziguinchor maa ngi koy ma ngi koy préciser jamono ji moo nekk waaye itam bokk ci li ñu leen bëggoon